Ama Sène maa ngi waaw ñu ngi doon lay jaar Tamba. Euh, tey tey nga am grand may lañu tur tey nga am bis boo xam tey bis bu la bett mu nekk loo xam ne nouvelle boo xam ne bett na la nga ñàkk sa waajur muy mm, tey nga ñëw fi di jaale ki nga xam ne moom mooy Waly ko sekk sa xarit. Mm. lan nga ñuy wax tey si Papa Thione mi fi jóge waaw di ko jaale Sénégal yëpp. parce moom ku xam ne Thione ñëpp la. Mm-hmm. di ko jaale tamit aussi Assane Ndiaye bu baax di ko jaale Waly di ko jaale Momi mm-hmm. ak Bougane. waaw àdduna moom nii la waaw mais yàlla na koy yàlla xar àjjana yàlla na ko yàlla yërëm taam bi def yëpp yàlla na ko yàlla suñu borom bañ a toppee dara digal ko rek incha allah ci kàttanu yàlla. ñu gis ne Thione Seck jot ngeen a am yéen ñaar loo leen mës dund loo xam ne tey doo ko fàtte ci moom. non Thione mbokk la deret la ci man parce que yaay Thione ak sama papa ñu bokk bàyyi waaw sama deret la moo tax lu muy jege jege il faut ma bàyyi lépp ñëw. waaw loolu xam naa tey moom du ñu wax ci combat mais yaa ngi waaj. waa yàlla baax na. nañ koy ñaanal yàlla xar ko àjjana. jërëjëf Eumeu Sène a ngi noonu. Eumeu Sène a ngi noonu waaye tamit euh, sëtu Samba Xoyaan di nit ku baax Eumeu Sène a ngi noonu. nit koo xam ne tey ji dafa ñëwoon pour jaali ji wala Wally Ballago Seck waaye tey euh, wax dëgg yàlla ëmmaa ngi noonu ñu nuyu nañ ko bu baax a baax siyaar ko. waaw maa ngi ànd ak suma caméraman Babacar ëm maa ngi noonu kon Babacar gis nga ëmma seen a ngi noonu di sëtu Samba Xoyaan wax dëgg yàlla moom moo doon ñëw tey di doon jaali Wally Ballago Seck mbokk yi ci kanam